xamoo dara de waaye xëy na am nga fulla am nga fayda am nga personnalité su ma gisoon ci yow ñàkk fayda su ma gisoon ci yow alefinti su ma gisoon ci yow dara dama lay bàyyi ndax man aw ma jot dama naan kii daf may tardeel waaye andu ak yow tardeel la andu ak yow du dugal ci lu ñàkk fayda waaye yow àdduna ba ma ba ma bàyyi sama nit ga ci lu ñàkk fayda ànduma ak yow ci lu ci lu màcc bi sama nit ga. waaw kay te fu ñu lay yàqee. waaw te xoolal lu la metti si boppam lu la waay wax si àdduna metti na ma mën na koy karaa. lu la waay wax koo xulo ak koo mëntu xulo metti na ma. te bu tax xamu tax tey ma toog live noonu ma woon sax live ndax danga ne woon Nogaye Kara boobu ba tey yaay ton woon xam nga yaay toog daal Nogaye Kara nii dañoo xuloo waaye dama ne woon man Nogaye Kara dafa am lu daa am su ma nekkoon damay bàyyi lu may def ñëw sa place. man na koy xam nga ne soo yow bu ñu xuloowee ma toog ci internet bi naan dañoo xuloo su ma jàppoon xuloo bi ndax man sama xarit day xuloo man aw ma jot du ma am yow wala maman yow mosoo ànd ak man fenn sa kër goro fu mu munti doon bañ na ko su ma nee nga naan na koy kara yaru nga de ndax man damaa lëcc moo tax fépp foo munti dem fépp foo munti dem du ma fa rus loolu maman damay bool lu ma neex lu ma ànd lu ma naq sama papa feebar ma teg ko sama papa ànd ak yow su neexa ak mettit te pourtant doo ko yëg de pourtant maman yow wax naa lu ne sama wax naa la lu nekk nag sama yaay sama papa ak fi ma jaar yëpp te pourtant maam Ndiaye sama mi ngi tax ma xam la am na loo xamante lu bëri xamalu ma ko waaye yow dama la bëgg sama biir xol moom su ma dee bëgg naa keneen ku yow damay fen man foo ànd ak ma damay jël bëgg bu seer dem si vraiment ma vraiment jox ma ma ñaw lu ànd ak jaw muy neex muy bànneex man ku ma woo si maam Ndiaye Sow maman Zirguère noo koy keneen ak keneen ma woo la xol la saaga la ne pourtant sama am na yow ku nekk du bëri neexu leen naa mu Mouhamed waaye maam Ndiaye tax ma xam la maam Ndiaye tax ma jàpp la maam Ndiaye tax ma bëgg la dëgg la wala dëgg waaye dama bëgg si boppam maman. lu ñuy waxtaan bu ñu ko waxtaan si ma ak yow. mu la sénégalais maman sénégalais eh, kara may ma tuuti nogay nogay. nogay may ma tuuti. dégg naa boobu ba tey maa ngi si sa direct man kër palaasu maman laa jóge suba ba léegi maa ngi maman ñoo àndoon palaasam laa jóge maa virgule bi ma demee jàppalu la dara. waxtaan nañ ba pare demb bi mala la woowee li mala la wax dama ne la nokay li mala wax mën ko ci direct bi Mama sa nit la te mama da la bëgg bu la dara jaral ngay bayyi mama waye yow ngay ci jëm bopam ya wara dépasser lu bari nga liggéey yow ci sa bop bi ma demee place mama waxtaan nañ man ak mama mama di ngay dem place am di fa xëy mu lay daggal salaire bo wacce nga dem jënd ji sa bagage dem tok seen keul direct nga ba sa bi ak sa dox gi nga nekké place bu ne nga ne fa joxor njaay càmbata njaay dugg na fii génn na lu nit ñi am da nga wara am ci na japp la pantongalu la bu la ne won jëkër a ngi nga ne ñeenti dooma ngi ni jur rek nga mën gi na japp la est-ce que may dégg dama nga liggéey sa liggéey kula ko bëggul mama Virgile bu la bëggul won du dugg fi ci life di justifier wala mu lay wax n'importe quoi nit ngay xam sa nit nit da ngay xam sa nit te sa nit bu la kenn jaxase ak moom ku la naan bàyyi sa nit ma ngay ànd ak nitam dëgg la wala ay fen te yow ba ñë ñëpp wutee ku ñu ànd yow yaa choisir maman Virgile dem ànd ak moom te maman bu la bëggul woon du la dem yóbbu la ci ay kër goroom ak ki njëkkeem foofu ku la fa yóbbu rek nit ku la bëgg la ndax man mi tey bu ma yàlla ma yaatoon jëkkër du ma yóbbu kenn sama kër goroom baa ma fa yóbbu sama kër njëkke kenn kon maman mi ku fonk la te bëgg la nekkal nit nga bañ a déglu waxu nit ñi jugal salon aada boobu nuyul ma aada nga jóge foofu nga dem ci palaasu maman ngeen juboo yéen ñaar maman sa xarit la dina la boobu ngay wax dagg salaire boobu ngay wax à partir d'aujourd'hui moom bu ko bu ko nangoo tey lay doon tey tey la moom ñuy liggéey man ak moom waaye fu nga ko neexee mu xam nga lan laa bëgg mu mm. jëmbat fut la ak fayda ci viwam démb loolu laa doon démb loolu laa doon wax moom ci guddi gi maman Mm-hmm. démb lii nga wax ni loolu laa ko wax ba pare maman na koy karaa mi ku koy conseillé nañ ko na ko na ko mu réglé yam benn place xam li mu bëgg ñoxor njaay fu ne nga dem fa taxawaal fa terewuma laa dem fenn terewuma laa dem fenn ba bañeeluñ laa kenn waaye nit da am ambition maman Vulgaire mi fan nga ko gis mu dem da ngaa gis ci benn place ah waaw waxam waxal ma kii allo abo abo ku ma ja am waxal ak moom nee ko mu jox ma suuf saabu yu ndaw ak sérum yaa ngi dégg. maman Virgé da nga gis mu dem fenn man noo yow yaa war a dem am esprit déplace dépassement ba wut xam li nga bëgg xam li nga bañ nga toog nga liggéey sa liggéey maman Virgé suba ba léegi man ak moom ñoo nekkoon. bi ñu toogee man ba ci demaa business dégg nga li mu wax dañoo waxtaan ak moom ba wax moom vraiment taxaw ma taxaw mamaa ne ma dama koy daggal salaire chaque weer. ñu diko ko fay mu boole limu am dem jënd bagage bo wacce nga tok sa kër ya joju nga dem direct ji nga nek nit ko gënul gënu la la bu doon da nga dof do doon talibé Cheikh Modou Kara te dafoo jina japp la ndax bu nu waxé nga né man talibé Cheikh Modou Kara la kon dafoo jina japp la pantongolu la fii kenn jàppeewu la dof nit ñi bo leen topé do and ak kèn nit ñi bo dé bo bo leen déglu do and ak kèn ji xam nga lan mo fi nek and ak say nit pat ndax nit ñëpp yam ay naa naafeq lañ bëgguñu kenn ànd. dëgg la wala du dëgg. waaw kay day ñëw maman la man la Passy Ndiago day ñëw maman Virgère nitam la ñuy ànd ànd bu rafet wax dëgg fa yàlla yéen yàqoo leen ko maman Virgère yàq ko àll salon yàq ko. day ñëw fii toog lu koy karaat du waxoo ko jàmbur du lijjëm timit léegi la fi ñëw ne aara woo ko aara téléphone te dama fay ñëw aara ne ko maman Virgère ni nga mel ma. mu a aada jote ma maman Virgile aada ne ko boo fi ñëwee wax ma li may wax nga dem dellu ci maman Virgile nga wax ak moom. jàppuñu ci benn xam naa ko bu baax a baax. maman Virgile mi maman Virgile ñëpp ñëpp moom lañ ko bëggal. voilà lu baax rek ngeen ko bëggal. lu baax lañ ko bëggal na da ngeen koo topp rek bëgg ko te yàlla tax non non man xam nga lan moo ma metti xam nga lan moo ma metti xam nga eh déglu ma déglu ma Fatou xam nga moo ma xam naa aada sawa xam leen ñoom ñëpp xam naa lu baax ngeen koy digal. mais dafa am na saytaane lañ dañoo toog naan no koy xalaat demul place maman ah. dañuy féewale xol mhm. dañuy dañuy dañuy yàq dañuy yàq ànd te loolu baaxul nit buy ànd ak nawle bàyyi leen ñu ànd te yàlla rek tax ndax mhm. jamono jii ñu toll koo bàyyi mu mu longoo neex na mais koo bàyyi mu dem ak ci mbaggam dëgg la wala du dagg kon ñoom ñaar buñ dee ànd maman daa ànd ak nogay ci yërmande man maa gën a xam maman Vulgaire nogay bu baax ndax maa présenté maman Vulgaire nogay dëgg la wala du dëgg nogay jikkoom ak léppam xam naa ko man li ma xam ci mhm. nogay ba xaaj ba xaajaat ba kenn xamu ko ci waaye dama ne moment vulgaire nañ leen nañ ko bàyyi moom nogoy mi mii ñuy wax commentaire yi di wa bind naan moment bu nogoy boo fa demut ak moment lii wëg lii wëg dafa tul ay seytaan ko ci ànd ak moom rek te yàlla tax ku ci nekk bul foog ni yow boo demee ci nit rek wërsëgam yow yaa ko yor yàlla day jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen mais maman Virgile Nogay Kara na dem kër ma na dem place maman ñu waxtaan ñoom ñaar mu jël ko teg ko ci place di ko fay sa weer bu dee loolu la bëgg tamit man du ma la nëbb sama nit bu la dee fay alalam di la fay xaalisam xaalis bokkut ak tëdd ba sa taat tàng nga jug naan damay xëy damay def yëf yi nekkal nit doo xale magum jëmm nga yaa ma mag téeméeri junni yoon bee jaaw nga kaw bee jaaw suuf waaw waaw ma jox bee jaaw nga sama bee jaaw. bee jaaw nga kaw bee jaaw nga suuf magum jëmm nga dëppoo ji dëppoo ji nekk am place yow xam nga ni li ma sori moo man na koy man ngay tontu wala na koy man ngay tontu. waaw waaw sore tax. ban ngay tontu na waaw kii daa ñàkk jom kii yow mi nga tàppatee maam yow na nga yow mi nga tàpp sama yow man ma yéene mama la mama yow la yab de man yabu ma de yow yaay dooma raam waaw man ngay tontu rek nga ne pat nga mel ni ñàkk nii waaw maa lay dégg xanaa na solo xoolal maman Bigué laaj ko barki démb woo naa ko téléphone waaw yow maman Bigué yaa ngi may dégg waaw aada maa ngi lay dégg barki démb woo ma la téléphone dina ko ci nogay bilaay dëgg la ah dëgg la dëgg la bii la génn. maman daa tonk bay bëgg a dee maman daa tonk xam nga tonk moom ma la mën a defal ndax léegi moom dem na ba ma nogay. Ah. waaw. Ah. daa tiit jaaw ko daa tiit jaaw <laughs> ko. may woo téléphone sa boo waxee loolu. boo waxee loolu maam Ndiaye soo toogee dafa bég jaaw ko ma naroon takk du ma. Ayo ka dito pa ayo ka dito pa Samba nang moom du sama palaas. Bu dee da nga ànd ak di la loolu moom nañ ko waxtaanee fii. maman na koy ñëw léegi day na kay. Samba da koy patuwee pat. déedéet loolu loolu moom doomu ma benn tus la am instant na benn tus la patuwee na góosam bi. Samba bu ma duggee ci tool yi léegi mu jeex de maman. su ma duggee ci coow li sàmba léegi mu jeexal waaw ma expliqué la. waaw ma expliqué la. moom fanaan sama kër événement mooy sabaru de si bi ma jox ko ba bu yaraax mu war a ñibbi. léegi nag takkul tukkee sàmba toog seen buntu kër xaar ko ba mu ñëw. bi mu ñëwee na ne ko nekkoon. Nogoy na kër maman la la la la la nekkoon moo ma jox li ma sol mu ne ndax gis na li nga sol Nogoy mu japp pat te yere bi mu soloon nda am per mu japp patu gos bi wen bi tius ben tius bi mu pif ko fi ne Nogoy ben tius lay doxante nitu ben tius la ñu. yow ma mama, nga yow yow mama, mi gër xam na ay duula tax Nogoy bay Nogoy bay la. wa na la won tius bi ba pare des na. ay duula taxoon mu bàyyi la baaraamu benn baaraamu lu koy na koy kii est-ce que ko bàyyiwaat. ah xalaatoo ko kon sonn mu ne. moo tax ma koy bàyyi. maam Ndiaye maam Ndiaye yaa ngi jubóo waaye lii ma nga yee cubi tey tey mama amala la ma jëndal añ. cuboo xam ne cukkar yi. cubu am ay ay fol la bi bari moo ngi mu ngi nii si place bi cukkar ah, boo xam ne boo am ay korlet. ay code la tout la la jëndal maam Dia. jeex na wala jeex may ko toog may ko toog lu mu ñu jëndal laa bari maa ko lu mu ñu jëndal dafa bari mënu ma ko lekk mi ngi fa. Ah, yow la bëgg kon ma jëndal lool su ma fa demee du ma jëndal lool ndox danaa ma ndox bu tàng baa ngi noonu naana. jëndal ah, ci mën a ceeb lay jënd. waaye nooy xam naa booy ñëw da ngay indaale guro rek sa jëkkër ji dalaa bàyyi de moom noonu nee na na la moom. ndax danaa woo jëloo ko waaye su ma jëkkër ji as maa woo bu ñu ko xanaa ah, boo ñëwee yow lay sotal biir yow lay sotal. sa direct bi nag nga dem nogay dagal sa direct bi nga dem. waa baax na waaw sa njëkk ji yow sa njëkk ji la yow moo tax woowu yow maam ñëwoon naa fi place keroog.